Euh, euh, waaw man de doomu HLM la juddoo HLM yaroo HLM màggee HLM waaw amoon voyagé woon nag voyagé woon demoon Italie def naa fa huit ans balaa may ñëwaat Sénégal waaw Italie ma fa nekkoon doon football waaw bi ma ñibbisee gis ni équipe bi il faut que ñu dugal ci suñu loxo HLM waaye wóolu am ci man yaakaar dénk ma équipe bi pour quatre ans. yaa ngi débuté euh, léegi gis nañ ne waaw pour loolu dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla julli ci yonent bi. waaw sant HLM waay parce que c'était pas facile départ bi c'était très dur euh, ñu faloon ñu pour quatre ans jox ñu objectif HLM waay population HLM waay ñoo ma nommé comme président ne ma dans quatre ans d'ici quatre ans yóbbul équipe bi Ligue 2 loolu lañu la laaj comme objectif mais ñoom ñoo joxe seen app rek mais àpp yàlla ak àpp nit du benn yàlla mi mu soob yàlla dimbali ñu ba loolu ñu ñu joxoon pour quatre ans ci dix-neuf mois lañ ko accomplir du suñu jàmbaarte nag man ak ñi may liggéeyal du suñu jàmbaarte ndimbalu yàlla la waaw. Euh, gestion HLM bi difficile. mais mun nañ ne difficileul parce que lu tax difficileul saako soo ko nekkee ci biti di nga yaakaar lu difficile la parce que saako ceeb boo ko bëggee yëkkati yow kese day diis. mais boo wootee ñu jàppale la day oyof te jàppale nañ ñu man ak membre bureau bi ak membre comité directeur bi les personnes ressources yu nekk HLM jàppale nañu HLM jàppale nañ ñu moo tax lii oyof tey. ngeen war a entamer benn saison bu bees à Ligue gis nañ ne dafay laaj ay moyens est-ce que les ressources sont waaw sant yàlla kenn mënul matale lépp. l'année passée beneen beneen avant suñu première année aussi ñu fi dara loo xam ni xaalis bu bu taxaw mais yàlla suturaal nañu def nañu ay résultats moyens ñu ngi fi parce que équipe bi du suñu équipe ñun équipe HLM ñëpp la dañu am ay personnes ressources yoo xam ni en l'occurrence damay tudd comme ni ma koy defee chaque fois damay tudd benn nit moo yóbbaale ñëpp donte ñëpp nag dañuy jëf am nañu Barxam Diop koo xam ni chaque jour jugul ci contribuer ci équipe bi jugul ci laaj ñu suñuy besoin lan mooy besoin équipe bi ban blocage lañu am ku mel ni aussi Mbaye Diagne ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Mbaye Diagne HLM la dëkk chaque année dina bu ñëwee Sénégal dina contribuer ne serait-ce que 2 millions 2 millions 5 première année bi mu ñu fi ñëkk ñëw contribué na 2 millions beneen année bi contribué na 2 millions 500 ñu mel ni ay baraxam Diop ñoo xam ni dañuy jël ay millions ak millions ak millions di ko def ci équipe bi ñooñu ñooñu ñoo tax yàlla ñooñu ñoo tax tey lii oyof si ñun voilà. mën nañ xam euh, seen euh, saison yi waaw comme objectif bi ñu HLM mooy joxoon mooy yóbbu équipe bi lig 2 ren dañuy ñëw. jànguñu nag championnat niveau bi ñu ne yéeg nii jànguñu ko parce que suñu papa miin nañ ko HLM ci élite bi ko ñëpp xamee HLM jël na li jël na coupe du Sénégal en 2012 HLM yàgg dem na football coupe d'Afrique HLM yàgg na Ligue 1 Ligue 2 ñun duñu fi gan on est accompagné de no parents suñu papa yi fi nekkoon ñun ay xale lañu nag boo xoolee ASC HLM man président ak ñi may liggéeyandool ak membre bureau ñëpp ay jeunes lañu mais on est des sages des, euh, des doyens comme en l'occurrence Papa Khalifa Sarr waane ñoom ci ñu créé équipe bi si lañ bokk Mbaye Fall l'ancien président et ak mooy président ba léegi muy Tamsir se ñu koy nuyu de passage aussi per Omar Diallo Alpha Seyni ñooñ ñëpp ñoo nekk suñu ginnaaw ñooñu ñoo créé équipe bi ñoo yoroon équipe bi bi mu nekk ci élite bi ñooñu ñoo nekk suñu ginnaaw tey ñooñu ñoo ñuy dooleel euh, gis nañ

jeunesse sportive des HLM la ko jox mais ci loxo ASC HLM du ASC HLM ko moom du ñun dañu ñëw def suñu be suñu suñu temps rek après dañuy dem bàyyi fi ñeneen ñu ñëw alors stade bi pare woon na stade bi ASC HLM a ko waraloon moo waral stade bi taxaw balaa mag Sall di ñu may di ñu ko may Pape Diop moo ko njëkkoon may Pape Diop bi muy nekk maire moo ko mayoon jeunesse sportive des HLM tegoon ko ci loxo ASC HLM ASC HLM dem wuti ji promoteur muy Sokobet tey ñi ko tabax alors bi ñu ñëwee après maire yi fi jaar bëri na mais mujjul antu yàlla ci loxo Seydi Aboubacar Seck l'ancien maire la ko jaarale ba li sotti tey ñuy gërëm l'ancien maire di gërëm le général aujourd'hui c'était avant c'était le gouverneur du palais colonel la woon muy Daouda Diop HLM moi la moo ñu jàppale woon ci autorisation construire bi ba yàlla yombalal ñu ko mais ci loxo Pape Seck la stade bi yeggee finition stade bi yëpp ci loxo maire bu bees bi muy Moustapha Diop ñu koy nuyu moom it au passage ci la ci la kii après dañu amoon quelques blocages ak le maire et l'équipe le maire et l'équipe le président Macky Sall dégg coow loolu mu woo ma en personne ne ma laaj ma problème mu stade bi lan la moo ko ko mu ne ma ok dinañ ci def suñu suñu contribution bi ñu toogee une semaine après le ministre Alioune Ndoye ñëw indil ñu avant Mamboy Diaw moo ma woo laaj ma kayitu terrain bi laaj ma lépp bi ñu ma ko joxee bi mu ko ko fourniré ci ngoon si euh, ministre Alioune Ndoye ñëw indil ñu ci baay bi waaw Macky Sall may ñu ko ñu koy remercier te Macky Sall yemul ci loolu kese accompagné na équipe bi daaw des millions et des millions lu toll ci somme 6 millions 5 millions la njëkk jox équipe bi après bi ñu gañee montée bi mu may nañu may na équipe bi décoré na jour un 1 million le président Macky ñu koy nuyu di ko gërëm encore une fois ci à travers seen seen seen seen site mooy blocage bi exactement parce que terrain bi nekkagul seeni loxo actuellement nii ngi entamé saison bi da ngeen koy soxla parce que da di dem si yeneen terrain yi pour les entraînements bi. waaw blocage bi amoon na avant avant Macky Sall ko jox léegi blocage bi daanaka amatul blocage la ñuy wax ñu ngi actuellement ñu ngi réunir pour xool date d'ouverture stade bi kañ lay nekk kañ lañ koy def. Euh, dañuy waxtaan ak waa Socobek ak euh, ñiñ ko séqal ñu xool kañ lañu mën a kañ lañ ñuy livrer stade bi ñu def homologue ñu homologué ko pour ñu mën fa jouer parce que comme ni nga ko waxee dañuy louer ay ay ay ay ay ay terrain di fa entraîner ay ay école police di fay ay deux cent vingt cinq mille pour deux heures de temps di louer da ñaari tali di fa entraîner di di recevoir Pikine te suñu stade pare na te stade bi dara taxu koo jog lu dul football alors blocage amoon na départ bi mais yàlla def na ci jàmm alors ñu ngi ñu ngi ñu ngi dans d'ici peu de temps dinañ tijji stade bi incha allah dañ dugaloon yeneen kayit yi pour am titre foncier bi dañ ko dugaloon au niveau de la domaine mais xam naa dans la semaine incha allah kii bi dina génn titre bi dina génn incha allah gis nañ ne seen stade bi ngeen ci jot. fan ngeen compté wu di recevoir seen match waaw Pikine comme niñ ko yaakaar nañu balaa boobu nañu homologué stade bi balaa le 15 parce que d'ici le 15 des na 18 jours suñu ko jot bi may suñu ko waa fédération jàppale ci loolu dinañ ko homologué balaa boobu ñu recevoir foofu premier match dañuy génn ñu nax AJEL deuxième match ñu nax Port ñun ñooy recevoir si toutefois suñu terrain homologué guñ ko Pikine comme Pikine la ñu joué année passée fa la ñu yéegee Pikine la ñu joué première année bi fa la ñu yéegee Pikine la ñuy recevoir sa dernier mot waaw di sant di gërëm HLM yëpp ci accompagner bi ñu accompagner équipe bi parce que ñun amuñu mënuñu dañuy dooleel rek ñun rek su dee ñun rek la du du du avancer ak ah, comme ñi ñu jàppale ñi képp ku mës a contribuer ci équipe bi moo xam ci supporter moo xam financièrement moo xam loo mën a accompagner équipe bi rek ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan nga ñaanal ñu aussi ñaanal parce que am na fu ñu teg suñu bëgg bu fa yegg ak équipe bi incha allah waaw.